alaikum beaucoup internet yi les abonnés de Hann Bekté di and ak yéen si suñu émission sport Neo Vision 13 tay pour notre premier numéro ñu war ci ànd ak notre jeune frère Pape Meissa Ba du jeu fële ci championnat France équipe bi ñu en deuxième division Pape Meissa ñu bàyyi la nga nuyo ak mbokku internet yi les abonnés. asalaamaaleykum alaikum internetu internet TV maa ngi leen nuyu di leen sant. di leen jox waccu way di nuyu grand Aliou bima dalal ak coach Iboulaye mi ma dalal ci plateau bi di nuyu wa antv TV di nuyu wa Yaraax yëpp Yaraax kep ba Yaraax tefes ma ngi nuyu ñëpp. mais nag ñu nga vacances. man ñëw na depuis le 29. nak sa vacances. pa santa alhamdullilah mais ben instant ak pandémie bi ni vacances <laughs> yi. du neex comme nous waron nexé quoi. waaw mais tamit sante yalla rek parce que pandémie bi metti na trop mais bañ ñëwé fekk nañ fi que ñila la ñëpp am nañ jamm kon alhamdoulillah quoi. waaw sante yalla bu baax. mais mais comment ça s'est passé en vrai vrai Pape Meissa bi ne woon ak Pape Meissa bi est-ce qu'il y a un changement ci ci ci ci façon de vie bi ou ça. Non, il ouais. n'y a pas beaucoup, beaucoup de changement, mais c'est le milieu qui définit l'homme. Mais mm. man, fu nek yalla yàllaa ma fa yóbbu kon tay ji mënul bokk Pape Maïssa bi nekkoon fi ak Pape bi mënul bokk quoi. Mhm. mënul bokk tay mhm. ngay jouer ci équipe bi ñan 3 championnat France. Mhm. nga gis pandémie bi Covid 19 bi. bon vraiment impact bi mu def ci football bi. vraiment ci côté bu négatif bi. mais ñu war waxtane waxtaanee surtout en championnat France. bi nga xam ne dañu jël décision. arrêter championnat bi bon tey nga newoon ci ben équipe. Mhm. et puis nekkoon jour foofu di jouer France. c'est si te nan nga dundee pandémie bi ak ban jangal nga ci am. wa parce que metti won na trop parce que suñu dernier déplacement dañ demone Le Mans ñëw ñu né ñu amna suñu benn jour bu ko am suñu attaquant bi souk moy suñu chinois bi suñu coréen bi quoi ñu né amna ko affaire yoy psychologiquement yow sa xel dina am lu mu xawa lu mu xawa jouer quoi mais dama né sant yàlla parce que ñun ay croyants lañ aussi quoi.

Mhm. moytu quoi mo am solo parce que feebar bi c'est réel mhm. mais nañ moytu quoi mhm. nañ moytu bu baax mais par rapport ak moom mi ko ba état de santé légui rek machallah wa wa wa parce que quatorze jours même pas avant ñuy egg quatorze jours mom dañ doon def genre réunion équipe bi yëpp mais par internet sur internet zoor yëpp ak coach ak yoy yëpp genre réunion la quoi par genre vidéo yoy mais après moom si la bokk quoi bokk na ci et tout envoyé gars yi message ne leen que tane na affaire yooyu après ñëpp promettre waat waaw ñëpp ñëwaat affaire yooyu mais yombul woon quoi yombul woon métti woon euh, trop mais comme tey jii ñun ak ñoom bokkuñu quoi parce que ñun moom waaw ay croyants lañ quoi waaw lu ñëw rek dañ naan suñu borom la quoi si si waaw. par rapport décision wu arrêté championnat wu France mhm. décision bu jógee ci état la bu ñëw. Mhm. wala wala fan lañ sukkandiku pour àtte ko parce que ñenn ñi ngi comment se fait-il que Angleterre mhm. di wut ay possible pour jouer mhm. Allemagne di wut possible mhm. mais France automatiquement dafa le championnat waaw mais man xawma bu baax a baax mais pour man France rek moo am syndicat wu INFP pour man France rek aka am quoi mooy syndicat wu joueurs yi joueurs 90 des joueurs professionnels Ligue 1 Ligue 2 waaw ñoom dañuy communiquer ak yow parce que xam décision bi la ak fédération dañ ci

maintenant quoi parce que tey dis suñu club dañu dépense dañu dépenser ay moyens bari pour que équipe bi monte parce que euh, so baye xel trois équipe bu Ligue 1 là parce que tout le temps les jouer si haut du tableau tout le temps. parmi les premiers deuxième ba troisième maximum quatrième fay nek kon tey jii amon nañ allure bo xamantene ñun tey championnat bi su eggoon gëm équipe bi day monter quoi parce que amon nañ arme pour monter waaw parce que amon nañ groupe groupe homogène groupe stable tout le monde se val affaire yoy amon nañ groupe dal bu baax bu mérité won monter Ligue 1 mais tamit benn instant diam ak pexeem yalla ak dogalam. par rapport ak ci Mbaye mhm. sa. carrière individuelle. par rapport mhm. sa masse progression bi nga nekkoon foofu mhm. noonu. commencé di jouer ci équipe A bi. si si tamit mu taxaw foofu noonu. nan nga mën ndax yaa ndax amul lu mu yàq daal ci vraiment. wa parce que affaire bi impact bi moy don nañ ko dégg diko ko dégg muy ñëw ndank mais bi mu bi mu gëna a bi mu gën bi mu ñu gëna kiwé kiiwee moy match bi ñu demoon defal déplacement après ñu arrêté ñu kii ko nu mu sax ñu ñu ki ñu annuler match bi ndax feebar beeg affaire yëpp parce que état bi mo jël décision ne match yëpp dañ koy arrêter jusqu'à nouvel ordre affaire yoy mais avant bobu man. instant bu benn instant maa toog naa ñaari match convoqué wuñ ma en plus yeneen ñaari match yi maa ngi woon ci banc bi football ma woon affaire yooyu mais par rapport ak ba may football comme bu nekkoon par rapport ak ba may football yooyu mën naa ne impacté na ma ci sama carrière ak yooyu mais dafa ma dafa fekk ne feebar ba muy kii dëgg ba ñu arrêté yëpp dafa ma fekk ma toog ci banc bi wala bokk ma waaw toog ci bambi bi war a mhm. parce que tamit quoi qu'on dise ci mhm. performance la wax ci joueur mhm. parce que footballeur yi bu duwee commencé di titulaire wu jékki-jékki commencé toog banc ñàkk performance wala blessure la non du blessure du ñak performance tamit mais tamit tay ji coach bi waxtan nañ ci quoi individuellement euh, mu wax ma parce que dañ jógee vacances janvier après ñu dem Espagne def benen préparation mais ñu def entretien maak mom mais lim ma wax dégg na ko bu baax mu ne ma deuxième partie bi soo footballul lu bari bul ko def benn bu mu nekk benn pression ci yow affaire yooyu genre kii yooyu mu ne ma da ngay soog a débuter affaire yooyu tamit man tamit loolu laa jàpp quoi. Mhm. waaw mais am na leneen mais yoo xamante ne kenn mënu ko wax quoi. Mhm. si si ci foofu noonu. parce que tey quoi qu'on dise. may mhm. pam may sa produit ñooy tànn la. waaw produit ñooy tànn la parce que ci ñooy nga nekkoon. waaw nekk icône sa koñ. quoi qu'on jël benn décision. quitté footballu Yaraax dem jouer ci fële ci Yoff mu newoon décision wax nag amoon na fi ay rumeur amoon na fi waaw waaw parce que commencé fecc bu ñu nee may sax noo ko feeraay lan moo la motivé woon foofu lan moo la motivé woon waaw parce que tey jii nit ku ne day ñaan yàlla avancement quoi parce que feeraay mënuma am lu ko ëpp falaa juddoo falaa yeroo falaa yeewoo parce que et tamit bu doon defuma fa dara sax dem sama yoon à la rigueur mais au moins ñaari coupe yi ñu mës a jël yëpp bokk naa ci quoi bokk naa ci si ñi ko jël

parce que tey jii ñun gars yi dàqu ñu leen football tubaab yi. dàqu ñu leen football quoi. mais tey jii benn gëm-gëm bi ngay am ak liggéey loolu moo lay différencier ak ñoom waaw suñ la jëlee rek am na lu ñu gis ci yow moo tax ñu jël la waaw mais temps d'adaptation bi moom mun naa ne metti na mettiwul quoi parce que mën na metti benn moment boo xamante ne du moment bu yàgg quoi waaw benn moment la rek. waaw benn moment la rek mais yàggul non quoi waaw après ma ñëw intégrer parce que tey jii c'est pas facile nga dem ci ben équipe bu mag fekk fa ben sénégalais bo xamante jouer joué yàgg na joué au niveau tey jii nga ñëw mu lay ci yoon parce que nenañ nañ la jiitu ci néegu lëndam moo lay fi ngay toog parce que tey jii fekk na fa pap Soirée mom moo fa fekk sax mom moo fa fekk mais tey jii am niveau bo xamante mom rek moo meuna dalal mom moo meuna ne. Jaral fi boy defal li so so so kiwe li parce que suñu entraîné ba paré dina mané li lii li nga def ni baxul suba nga def li affaire yoy suñu jouer tamit dina ma wo né ma match bi ni la ko gissé wala suma sañon nga yokuli suma sañon nga yokulé parce que tey jii moom moo ma si jiitu eh, di sante yalla ci lolu bu baakha baax parce que tey mën nga dem ci équipe bo xamanteni ne fa fekk kenn ku ne bop ak sa bop la mais tey jii yàlla suturaal na ma waaw moom conseiller na ma teg na ma ci yoon waaw di ko sant di ko di sant yàlla ci loolu bu baax a baax a baax. daal moom kon moom daal joué na ci lu bari. na ci lu bari bari bari parce que xam nga tey jii jour quoi qu'on puisse dire soo fooree mantalement rek eh, mën nga génn ci lu bari que mën nga nekk ndaanaan trop te fooroo mantalement doo ci génn eh, moom aidé na ma ci. mentalement dal mom aidé na ma ci lu bëree bëree bëri wa ñu fàttali mbokk yi que ñu suñu émission sport New Vision 13 tay and ak ci ak notre jeune frère muy Pape Maïssa Ba di jouer ci en championnat France en deuxième division muy équipe bi ñu naan 3 waaw bokk na ci tey Pape Maïssa bëggoon nañ xam tamit say ambition. waaw samay ambition moy parce que tay ji nee nañ borom boutique mbag bo ki so kiiwee xol bi magasin nga ci fek waaw samay ambition moy d'abord je suis sénégalais bëgg naa tey jii jouer ci sama sama club 3 jouer nekk euh, ci équipe bi liggéey loo xamante daf may bàyyi ci équipe bi may jouer ci équipe bi am réussir dara avec équipe bi ba pare jouer sur rôle bu am importance après pour que wa pour que yenen équipe gis ma après ma ma ma ma ma dem ci équipe yoy quoi waaw c'est important ci loolu non mhm. mais aussi yaraax mo soxla dom waaw nam dom doom di ko gis. Mhm. mu atteindre niveau bu tawee tawee. Mhm. waaw bien vrai que trois équipe mag machallah macha am na ay ambition équipe organisée wu la. munoo championnat France te mo tudd ko. équipe mag kon parce que moo diis. c' est sûr même su fekkee en deuxième division. mais tay ambition yi pourquoi mo accès foofu noonu. mooy que ne mo moo dig ci dom doomam. muy compétir ci ben niveau bu kawee. waaw tok ay at yi at gis ñu ko. si si ñu am un jeune espoir bu ñu toll nii. moo tax il faut tamit foofu mo tax ma bëggoon tamit.

kon tey ji secret bi que ñoom ñu wax ma ko ou pas ou ñu bañ ma ko wax secret bi yëpp pour man liggéey la quoi waaw su ma liggéeyee rek xëy na mun naa atteindre objectif yooyu quoi waaw jouer si équipe yu mag a mag a mag tey ji ba sama réew bàyyi ma xel muy Sénégal bàyyi ma xel bu baax a baax a baax en équipe nationale mhm. soo xoolee mhm. am di fay jaar na fi waaw mel ne Adama Sarr jaar na fi mhm. Issa Ba mhm. de même que Momar Ndiaye ku ci nekk yàlla defoon nañu mhm. vraiment Sénégal bu daan joué Yaraax daan na sentir que ni vraiment doom mi ngi ko représenté foofu uh-huh. aussi tam pas mal d'années ñu manqué loolu noonu ndax yaa ngi projeté di bàyyi xel équipe si si waaw maa ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax parce que nit moom nga joué professionnel ba mu jeex te joué woo équipe nationale pour man amul sens quoi waaw parce que tey jii nit moom sooy xeex rek sa dëkk moo tax

moom laa gëm te man pour man gëm naa ni tey jii loolu liggéey moo koy maye gëm naa ne am na arm liggéey am na arme comme tey genre am di fay geeg yooyu suñ leen côtoyé ñu waxtaan ak ñun ah, ñu waxtaan ma waxtaan ak ñoom gëm naa ne tey jii di suñu leen dégloo dinañ dinañ ak ak ak liggéey bi ñu liggéey bi ñuy liggéey ak gëm-gëm bi ñu gëm gëm nañ ne suñu leen suñu dégloo seen conseil rek fofu dinañ fa mëna égg inshallah waaw. waaw am solo suñu dégloo sen conseil fofu mhm. nañ fa mëna yegg. Mhm. parce que olof Ndiaye mo koy wax ku la mhm. jitu ci kër gi mo lay wax togué je pense que ni am fi ay icône football. ño xamné ay doomu yaraax lañ football ci haut niveau ba ñëpp xam leen xamé sen tour kon da fay am solo sen rak bu nekkee ci ben yoon. mom mu bayyi xelam conscient que ni effectivement fi mu bëgg dem mën na fa dem mais pour mu dem fa il faut qu'il soit accompagné ay nit nekk ci ginnam di ko conseiller c'est vraiment ñun xam nañu ku dëkk yaraax mhm. si on le dit pas mooy sax ndax mhm. mën na ci équipe nationale mhm. da ngay yeew ne effectivement mën dafa ci parce xam nañ loolu mais tey dafay baax seen doom mu toog tey fii il rassure que ni effectivement il est conscient que ni lii maye mbir bi liggéey la te moom mi ngi ci yoon bi mi ngi ci voie boobu noonu je pense que loolu dafay am importance ci foofu noonu tey benn produit génn ñëpp di ci dund yaakaar am ci yaakaar que ni war na mën toll ci haut bi poste tamit war représenter mhm. sélection nationale produit la mhm. ñu ci Cheikh Ndom ñu ci football crise mhm. yow nga période bu difficile ci football irak, quoi qu'on période football bi en crise football bi doxatul sa génération nga génn ci nga football waaw parce que Yaraax football la wax ñi fi ñu fi jaar au niveau kii local ñu xam leen bari na trop ak au niveau national ak international bari na trop trop trop kon ñun yaraax kenn ñu génnee ci football dëkk football la waaw mais tey ji jumtukaayu pour man jumtukaay moo des jumtukaay moo des ak ak encadrement bi waaw parce que tey ji encadrement bi ak jumtukaay su su su matawee rek pour man gëm naa ne suñu waxee may sax dinañ si teg ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que Yaraax dafa bëri ay talent trop trop trop te talent yooyu pour man warul niil quoi waaw waroon nañ pour man te gëm naa ko sax parce que dafa des na quoi parce que tey jii doo fi pro moom doo ko njëkkoo njëkkoo ko fi nekk te doo ko fi mujjee nekk mais pour man Yaraax tamit jumtukaay suñ ko amee rek dinañ am ay pro yu pro te maa ngi ñaan yàlla loolu quoi. pour man tamit su ñu amee benn équipe championnat bu baax a baax a baax waaw footballu yaraax bi dina gën a dina gën a dina gën a dina dellu fi mu nekkoon ko waaw dina dellu fi mu nekkoon. man match moo gën a neex Mbaye sa mu dund ko ak Feeraay. <laughs> Feeraay waaw Feeraay. match boo xam ne Mbaye ko fàtte. waaw que final ñu nag montagne mooy premier wu coupe que boobu moom souvenir boo xamante ne du ma ko mës a fàtte. waaw boobu moom marqué na ma trop trop trop ci sama carrière mhm. waaw mooy premier coup bu feeraay parce que tey jii say mag football nañ feeraay say grand football nañ ñëpp football nañ feeraay te tey jii mosoo gis coupe tey jii ñun ñu yàlla su tuddee ko si suñu génération ñun mhm. waaw loolu moom dafa nekk na loo xamante ne marqué na ma trop trop trop. final ñaar ñaar la 3 dugal nga waaw ah, dugal naa. <laughs> benn laa dugal. benn bi nga dugal <laughs> il faut ma dellu ci yow ak benn anecdote boo xam dañ ko dund man ak yow. Mhm. dañ jógee stade. Mhm. Mhm. ñu ànd man ak yow. ak Aziz Sakharit. ñibbi. bon nga ni ma kër. jiw de mi ngi dugal ay biir rek gars yi ñu ngi koy coow. waaw <laughs> sama ko ñu ngi may sonal di ma perturber may sa kii moo la mën may sa kii moo la mais kër si nga waat. dama booy ñoom booy ñoom booy yemuñu ma fii. bokk maa son ñoo sa niveau tey monsieur bi doon wax loolu ah. il était à côté de moi ah. nekk bis bi yara tey monsieur boobu di dem di dem di dem chaque année ngay gis muy progresse dem mhm. progresse dem ah. am na fi blessure mais mentalement lépp mu géré ko mhm. di dem di dem dem tey ba accès ci au niveau bi mhm. nekk fa di jouer muy championnat 3 lan moo lan la woon quoi lan moo secret bi mais jamono boobu ma koy wax ak jamono yi bokul quoi instant bi sañatuma ko wax mais xëy na fougue de jeunesse moo japon jàppoon que ma booy moom. football de jeunesse. Mhm. mooy nga wax loo xam ni. Mhm. da sa yaram moo tàng nga wax ko. Mhm. waaw mais dañ ko gis par rapport ak sa parcours. da nga ko wax mais chaque fois ñu gis ni. may sa bu tegee benn pas bu subaa teg na beneen teg na beneen teg na beneen moom tey mu yegg si fii aussi dëgg la football de jeunesse am na ci. am na leneen du ci làqu. muy lan conviction boobu noonu. waaw lan la nga gëm ni liggéey la wala lan la. waaw waaw liggéey moo ngi ci ak tey jii am ambition ci dara tamit parce que tey jii dama bàyyi lépp pour football quoi. waaw soo bàyyi lépp pour football tamit benn instant. da ngay pour man loo bàyyi so dama bàyyi lépp pour football kon dama war a rey sama bopp quoi pour réussir si après mais soo defee li nga war a def yëpp réussite su amul ñëpp dinañ xam ne yow def nga li nga waroon def mais yàlla moo ko dogalul mais tey jii di sant yàlla bu baax a baax a baax am naa gëm bi te tey jii sacrifié wu naa nag bu baax a baax parce que bàyyi naa suñu kër dem loger Yoff nekk fa sori sama papa sori sama yaay dem concentré nag bàyyi damay dem concentré wu ci football bi Euh, Dakar Sacré-Cœur tamit ñu gis ma jël ma ma continuer nekk yoof dëkk fa di gën a concentré wu liggéey concentré wu bu baax ba tey jii suñu boroom yóbbu ma niveau bi waaw loolu sacrifice la ak liggéey ak gëm-gëm waaw. jour jour bu jógee bu nekkee ci quartier. Mhm. di nekk di def carrière football. Mhm. dafa am loo xam da koy marqué loo xam ne mhm. chaque fois. moom mooy source de motivation. ñi dinañ wax ni mhm. sama yaay la mhm. dinañ wax ni ma dundoo sama papa la li bu dundoo sama xadi wala li ma dundoo keneen keneen mhm. mais bo xolé à chaque fois dina am lo xamni donte lepp mi ngi sa ginnaw mais am lo xam chaque fois moy nek sa source de motivation sa yop xalaatee rek sa xel nekati nga gën gor góorgóor lan la ci mbay sa lool wa man sama source de motivation moy saa bu ma mësaan na ñew suñu kër dama naan tay ji kër gi lepp lepp lu mu mëna nu mu mëna mel rek man maa ko ci wara def kër gi su jugee man maa ko war a yëkkati famille bi suñ leen respecté man maa war a tax ñu respecté leen comprendre samay yaay ak samay waajur fuñ dox siggi man maa war a tax ñu dox siggi waaw loolu yëpp dama ko doon nelawaale di ko di ko di ko fanaanoo di ko yeewoo wax dëgg yàlla waaw am kii boobu tey ji source de motivation boobu tey ji waaw xëy na moo ma moo ma yóbbu fi ma nekk waaw parce que tey ji dama ne am naa ay mag yu nekk extérieur et tout mais gëm naa ne man tey jii waaw suñu kër lépp nu mu mel rek man maa ko war a def quoi waaw loolu moo ma poussé ma gën a am ambition parce que man chaque semaine laa doon ñëw suñu kër ba ma nekkee Dakar sa kër kër ba ma nekkee Yoff chaque semaine laa doon chaque mercredi ba mercredi laa doon ñëw suñu kër su ma ñëwee damay xool kër gi nu mu demee affaire yooyu su ma ñibbee gis naa quoi su ma ñibbee ma gën a liggéeyaat waaw pour que samay parent samay mbokk samay waajur samay am di jàmm ñëpp nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp nekk dans des très bonnes condition donte début carrière laa nekk mhm. mais maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que tey jii waaw maa ngi def le tout pour samay famille maa ngi def tout pour samay waajur maa ngi def tout pour samay am di jàmm ñi ma jege et plus en plus samay xaritu démb ñoom laay àndal ba tey samay nitu démb ñoom laay waxal ba tey waaw te te tey jii ñëw man tey jii ñu bari dañoo amoon yaakaar ci man te yàlla def na suñu borom tasul seen yaakaar parce que tey jii ñu bari dañ doon wax may sami day réussir may sami lii may sami laa mais tey jii c'est bien beau ñoom ñu wax ko mais l'essentiel bi mooy liggéey yow yaa ci des comprendre nga ñoom dañuy wax rek lañ mën ak ñaan mais liggéey bi ak egg foofu si yow lay nekk waaw. par rapport ak euh, phénomène bi am ci footballeur sénégalais. Mhm. jeune dafay génn ñëpp am ci mhm. moom yaakaar. Mhm. mooy li nga wax. moo am benn source de motivation bu nekk ci moom. parce que gis na ni jot na mu dimbali ay parents am. moom lañ yaakaar mais dañuy gis bu commencé atteindre benn niveau bi rek day mel ni ku fàtte loolu commencé bàyyi ay xaritam commencé mel nekk loolu moo ko motivé woon nekkaat ci leen nekkaat ci leneen loolu la moo koy parce que tey jii nit ku nekk ak ñu la xëy na nuñ la yaree nit ku ne ak kii nu mu tuddee sa succès nu muy def ci yow mais man moom wax dëgg yàlla succès kiiwuma wu ma succès du ma yóbbu fenn parce que am na ñu la fi njëkkoon nekk signé pro signé foo xamante ne signé woofu te doo yow tamit signé nga te doo ko mujjee am na ñoo xamante ne dañuy signé waat te xamoo fan la leen yàlla di yóbbu mën nañ la dépassé mën nañ am seen premier contrat que yow football nga ba sa carrière jeex mosoo ko am et tout kon sooy bàyyi loolu xel rek pour man tey ji changement warul bokk ci yow warul am ci yow quoi. Mhm. changement warul am ci yow warul bokk ci yow. Mhm. Mhm. loolu c'est important. je pense que ni football wax nañ ko. su ñu waxee sport new vision. li ci xalaat li leen ci bëgg. mooy que nit ñi war a am beneen gis-gis bu bees. en tant que africain. nekk un jeune di football dara warul la ñëwee ci football. dara warul la jomb ci football du seen coéquipier wane na ko mhm. seen frère wane na ko muy mhm. Sadio Mané mhm. tey bu ñu dem ba ci haut niveau ñu wax ci football ñu wax Cristiano Ronaldo ñu wax un Messi ñu wax un Sadio Mané ça veut dire que que ni su fekkee conscient ngeen noonu rek yàlla mën a def lépp lu Sénégal di bëgg am ci ndam au niveau Afrique am ci ndam ci côté mondial yàlla mën nañu ko may si si dafa vraiment daf ñu su ñu amee ay jeunes yi mel ni yéen conscient que ni affaire bi du dara du lenn lu dul liggéey tant que boobu tant que gëm nga lool rek mhm. je pense que ni boo ci nekkee rek yàlla mën na ci def ndam si si tey ñu bàyyi la mhm. sa dernier cadeau, mhm. booy wax ak mbokku internet yi waaw maa remercier wu initiative wu Hann TV bi yëpp di remercier grand Aliou mi ko ini mi ko initié coach Iboulaye yow encore une fois maa ngi lay sant di la gërëm eh, mën naa ne jour yi bëri nañ fi trop yow nga invité ma quoi <laughs> loolu sant yàlla bu baax a baax di wax ne téléspectateur Hann-TV yëpp leen wax encore une fois man seen doom laa ngeen gën ma ñaanal gën ma ñaax lu ci dëng ngeen man matul li si jub ngeen xam ne suñu boroom la maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne kontaan naa trop trop trop di wax waa yaraax que seen doom Pape Maye Saba ngi ñaan ngeen ko bu baax baax baax ba drapeau fu mu fu mu ko Nous sommes tous merci beaucoup voilà beaucoup internet émission sport New Vision 13 Nous ñu notre jeune frère Pam Maïssa de l'espoir du football yaraaxois du jouer de championnat en France équipe de en deuxième division je remercier beaucoup internet du Antv, mais mention spéciale à mes techniciens qui def Mouch beaucoup ayib et que di len jox dig dajé ci benen numéro ak sport New Vision. merci.